mbokk yi ñuy seetaan euh, gannaaw bi ñu leen nuyoo di leen jaajëf bu baax wax ñu ngi ñaanal xalifatul euh, am sëriñ Muntaxa al Bachir mu yàgg filo loolu tànd ak wér di ko ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp. Euh, tey nag ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaanu Bawol te yëngu ci wàllu presse bi te am benn kuréel tuddee ko association des professionnels presse en ligne di Bawol muy appel be dañoo amaloon tey benn ndaje boo xam ne ñu ngi ko doon amale fii ci Touba. ndaje mi nag li ko waraloon moom mooy que ni doon doon càmbaraat li nga xam ne ni ay at ak ay weer ñu ngi ko doon mébét te yàlla dogal ñu jot ci muy benn récépissé ci ndug ci ndigalu nag ki nga xam ne moom mooy sunu président Cheikh Gueye mi teew ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy organes yi bokk ci association bi yëpp nga xam ne dinaa leen lim léegi bokk na ci sunu info siiwal tubaa info guy mbind euh, vingt 24 actu Rafa TV Murit info Murit TV leerlu Touba Belel point net académie Minane xibaar vingt 24 seen zoom Dakar Média Cheikh Ibra point com ila touba point net mbedd mi euh, timis tamit ci la bokk Sénégal web Xitma euh, TV Touba 24 Assalaamy L24 28 Pro Touba Vision seen SN xibaar seen actu TV waaye tamit dañ koo fas yéene yaatal ci ñëpp ñoo xam ne ne am bokkagun ci te bëgg cee bokk Sénégal web tamit ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. loolu nag day doon ndaje moo xam ne nii comme ni ma koy xewoon sànq rek li nga xam ne moom la ñu doon mébét te yàlla dogal ñu jot ci muy récépissé kayit boobu nag bi ñu ci jotee ci lañ doon waxtaanee maanaam li nga xam ne moom moo nekk suñu kanam li nekk suñu kanam nag moom mooy que ni dañoo am benn leeral boo xam ne dañ koo bëgg a leeral askan wi dëkkee diggante Touba Mbacké ba jàpp sax bitim réew ne presque en ligne bi nekk fii ci Touba ñoom ñëpp dañoo def benn say di nasandoo di noccandoo. noccande boobu noonu moom mooy képp koo xam ne am nga ci benn activité bis ni tey activité bu mu mënti am boo bëggee ñu jàllaleel la ko wala boog information bi nga bëgg xam ne bëgg nga ñu traité ko ci ni mu waree presse bi légal te nekk ci diwaan bi moom mooy presse bii nga xam ne moom da ngeen ko coordinateur bi numéro dina daw ci suuf bu ko defee moom mu coordonné la sa activité ba lépp li nga bëgg ci xibaar ñu fas yéene la ko jàllaleel yemuñu foofu nag ñi ngi naal nag ab dox boo xam ne nii ñu ngi koy ak ay tànki nemmeeku yoo xam ne nii dañ koy tàmbali ci kilifa diine yi ndax dëkk bi dafa am borom moom lañ ko war a njëkk a bëral xamal ko ne ko association bi nii la fas yéene taxawee ñi ngi ci sant nag ñenn ci ay kilifa diine yoo xam ne tàmbali di jàppale ci ab euh, mën naa ci cité sax Cheikh Abdou Bali bi nga xam ne defal nañu benn formation ci biir màggal gi ndax reconnaître na association bi loolu nag dañ ko fas yéene sàkku ci moom te mu wéyal ko ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaan bi ñëw jàppale ñu ci association bi ñi ngi ciy woo tamit maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifay aada yi chef de service yi nga xam ne ni ñoo nekk ci diwaanu Touba ak Mbacké wala ci région bi jiital ci préfet gouverneur ñoom ñëpp ñu xam ne association bi tey dafa doon association boo xam ne bu légal la ndax kayit yi ñoom ñoo ko signé jox ñu ko loolu nag day firndeel maam suñu mbokk taskatu xabaar yi nga xam ne nii ñoom la ñuy jàpp ne wala ñoom ñoo ñu gën a kawe wala ñu jàpp ne ñoom ñooy suñu mag ci di ñu leen wooye suñu suñuy doyen dañu leen bëgg a xamal ne leen ñun produit bi nga xam ne moom lañ soxla fii la fekk baax ñun ñoo yore li nga xam ne moom mooy source d' information yu fiable yoo xam ne tey bu ngeen soxlaa information ba jaar ko ci association bi du ngeen am benn jeexi jaax du ngeen am dara leen ci ëm kon daal ci tour président ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy membre di organes nekk ci association bi ñu ngi leen di xamal ne maanaam coordination bi tàmbali bis ni ki tey ci numéro bii nga xam ne moom mooy le coordinateur ci activité boo ngeen mënti am numéro bi mi ngi noonu di daw ci suuf ngeen noon a jokkoo ak moom su fekkente ni maam bëgg ngeen ay information yu leer bëgg ngeen tam seen coordination seen activité ñu jaarale ko ci yoon jaarale ko ci maanaam anam bi nga xam moom ngeen ko bëggee numéro boobu rek ngeen woote boo ko defee association bi ñëw taxaw leen ba nag ñi ngi jëm ci ay mbir yoo xam ne mbir yu doy la parce que source d'information wala information dafa loo xam ne nii il faut que ñu saytu ko te ñun li ñuy liggéey dañ koo teg fu wóor ba looloo tax nag ñu dem wuti ab récépissé pour gaaral li nga xam ne moom la ñu nekk tey ci liggéey mi ngi leen di gërëm bu baax a baax su fekkente ni maanaam kàddu jub na ñu xam ne ci président bi la ak ñi ma yónni woon su dëngee itam ñu xam ne ci man maa ngi leen di jégalu bu baax baax di leen gërëm.